mbokki internet yi dal leen ak jàmm ci seen revue d'actu dañ ko daldi di tàmbali équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé le 19 mars bi di ñew lay xamle liste gaynde yi nga xamanté ñoo war jonganté euh, ñaari match yi war dox diggante Sénégal ak Guinée Bissau le 19 mars kon lay daldi def publication euh, de listem 19 mars nek jeudi euh, bi di ñew jàppale ni kon Sénégal ak Guinée Bissau dañuy jakarlo ci double rencontre bo xamanté match aller bi le 28 mars lay am fi ci Sénégal kon Aliou Cissé ni mu ko tamé di defee dina woo journaliste ci hôtel Goodred bu 10 h jotté mu dadi xam lé gaynde yi nga xamanté ñom ñoy bokku ci ñaari jongante yoy nga xamné match retour bi le 31 mars lay am ci Guinée Bissau di leen fàttali ni dafay bokku ci éliminatoire CAN 2021 mu ñël ñetteel ak ñeenteelu bëccëg bi Paris Saint-Germain a qualifié li nga quart de finale Ligue des champions Paris Saint-Germain a Borussia Dortmund ñaari Tidara, ci Parc des Princes Neymar ak Berna, ñoom ñoo daal di bu euh, Paris Denko ko daal di ñaari bal ci benn euh, Paris a sauté li huitième de finale Paris Saint-Germain euh, joueur ya dañ leen doon ŋàññi ci match aller bi nekkoon ah, ca Paris yëpp dañoo wane seen bopp Idrissa Gana gi bokk na ci juróomi joueur Paris yi nga xamante daw nañ lu ëpp fukki kilomètre moom Gana Gueye buñ koy ma kon toll na ci 10,971 km 971 kilomètres mu mel kon démb Paris dafa daldi di wane xar kanam bu bees tàq ngir mën a li nga xamante moo di ci Ligue des champions bi. ñu wax ci Salif Sané may évoluer ci Charles 04 mom nek itam défenseur ci équipe nationale bu Sénégal jàppale ni weeru ba novembre le blessé won daldi nay indi ay xibaar. ci boobu les blessures xam leen ni jamono bi docteur yi ñoom ñoo wax mu xaar tuuti benn semaine ak genn wal ngir mën mën a reprendre totalement donté mom euh, sentir na li nga xam te modi tan ci wergu yaramam muy xam le ni weeru blessure bi nak euh, li nga xamanté euh, la dundé moy mooy famille wam yi ko soutenir way itam ay coéquipiers yo xamanté nek na fi ci football itam muy xam ne ni genre blessure yi ni da fay dalé way du téré ligue bi da fay continuer nak mom nek na joueur bo xamanté da fa bëgg jëm kanam mom défenseur sénégalais bi am ñaar fukk at ak juróom mi nga xam ne ni période blessure bi itam dina am euh, parfois joueur bi ci boppam muy dute ci xelam ndax day am ay joueurs yu bees yoo xamante dañuy ñëw ci wàllu mercato bi di jouer itam ci postam waaye teewul moom euh, la mu bëggal boppam rek la bëggal équipe bi mooy mu jëm kanam daal di jouer ay place ci li namtu di championnat européen bi lolé moko ëppal solo mom Salif Sani wax ci jàngoroy coronavirus gi nga xamanté jamono gi mi ngi wulé ñaay ya xam ci aduna wërngal këpp diwaanub Europe nak jàppale ni li nga xamanté moy championnat bu Espagne dañ ko daal suspendre pour ñaari journée boudé ci ca Belgique muy Pro League bi fofu dañ ko daal jël mesure ngir ñu jouer match yi à huis clos boudé nak ci walum NBA bi jamono bi

NBA jël na ko ngir daal di suspendre euh, li nga xamante kon moom mooy tàggat yaram bi foofu yeneen club yi nga xam te jot nañoo laaleeg waa Jazz dinañ leen daal di defal ay test ngir xam nax yooyu la euh, club dafa am yeneen joueur yoo xamante jàngoro bi jot na leen laal. tay liñ doon euh, waxtaanee mbokki ci wax sa xalaat bi moy dogal gi nga xamante CNG jël nako ngir radier à vie Sitor Ndour arbitre internautes amul kenn ko xamanté d'accord na ci euh, décision bobu nga xamante CNG jël nako ñu japp ni kon mom Sitor Ndour dafa nek ci droit wam ngir daal di def grève xamanté da fay tax ñu améliorer condition wu liggéeyu arbitre yi lu ci melni ñu jox leen assurance waye itam liñ leen di fay ci lamb gi ñu gën ko ñoñal ndax jël 10000 francs euh, diko jox arbitre juróomi arbitre arbitre yi ñuy séddoo lu tollu 52 mille ñaaw na torop loolu yëpp internet yi daal di nañ koy ñaawlu ñaawlu itam taxawaayu ki nga xamante moo di président CNG di ko wax ni jot na fu ne nii mu daal di bàyyi CNG dem jàppi ci leneen ndax li nga xamante moo di làmb bi fii ci Sénégal mën a jëm kanam actualité CNG beeg coow li nga am na jamono gi seen diggante ak arbitre yi mën ngeen ko suivre ci wiwsport point com di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba suba incha allah